asalaamaaleykum alaikum, mangi, mangi, mangi, di ziar ñëpp di leen bëgg bu baax a baax a euh, ci ci li nga xamante ni mooy euh, moo waral sunu yëngu-yëngu nga Vogue bon on s'était dit que duñu wax si si wàllu ci sori ci trop quoi parce que actualité

lañ ko négligé ba nga xamante ni tey moo tax ku jóge ci àll rek ñoo yàpp ñu foo dem ci àdduna bi rek am na ñoo xam ñi ngi préserver seen i valeur di ko xeexal taxaw nekk ay Baay Faal di ko xeex ñu war a jug ñun sàmm ndongo li ni ko Alaaji Maalik defe woon ko Baay Ñas defe woon ni ko Limaamu Laay defe woon ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko mag ñi defe woon tey nag ñun yàgg nañ xeex koo jigéen mais affaire bi dafa dem ba commencé ëpp loxo euh, bi bi bi bi nga xam ni Wally Seck def na li mu def après ONG yi ak association homosexuelle yi dañuy def ay tweets quoi Le Sénégal mi ngi Sénégal ñi ngi feete seen ñi ngi feete gay pride parce que ñu bëri comprendre ñu ni dimanche bu dernier dimanche du mois de juin mooy gay pride mooy feetu góor jigéen Les gens ñoom góor jigéen ko tweeté mu ngi dañ ko tweeté dañ ko tweeté di wax ni Sénégal ñi ngi feete homosexualité Sénégal ñi ngi feete homosexualité bi ñu gagné ce match ak seen match bu mujj bële moi bi allé à tous les moyens sont bons pour faire ça mais pour nous comprendre nous on n'a pas de personne on n'a pas de problème avec la personne de Wally parce que nous avons un problème nous avons jigéen la nous ñun valeur nous avons kon Wally avons Pape on s'en fout Si on lu mu def tamit dañ koy attaqué keroog bu mu defee sabar bi indi débat bi actuellement du Pape Diouf Wally parce que Hmm, drapeau góor jigen ci concert adnu bi yëpp jigen adnu bi ak site internet ye tweet ñu koy tweeté diko remercier diko ko gërëm ci aduna bi parce que xamna limu def programme am la motax du mus taxaw tal tal tal tal mayo mayo góor jigen nako def kon ni mu laké ni mu daggé won saag bi bi mu yee saag ba ñu attaqué ko donc li nak dafa nek lo xamanteni ni mooy Gay Pride bi nga xamanteni moy bisu góor jigen yi nga xam mo xew ci aduna bi yëpp ñu def ko dernier dimanche mois de juin ñepp di ko feete góor jigéenu at yëpp di ko feete moom Wally Seck mu ñëw taxaw di leen teewal fii di taxawal di leen dëgëral moo tax ñu song ko bi ñu ko songee yamul lekk ci loolu mais papaam dafa génn am yu mu wax góor jigéen ñi génn am lu ñu wax léegi ñu dem déglu góor jigéen ñi déglu leen góor jigéen ñi ñu xool ngeen xool góor jigéen ñi góor jigéen ay góor jigéen yuy défendre nañ déglu góor jigéen jëm leen a mel ni Wally Wally leen dina xam diine ah dama ne góor jigéen boo leen koy wooyee dem na laal na kaaba màkka de su doonoon góor jigéen fu mu doon laal màkka dafay seey yéen a xamu leen islam xamu leen diine waali jël naa jege islaam jël naa jege diine dama ne waali gis na Kaaba laal na Màkka wax na laa sarika la béyka laa sarika la ka béyka yéen laa sarika la ka béyka waxoo leen ko ustaas yi yéen yoo xamante ne xamu leen sa laa sarika la ka la. ok ñoo déggandoo góor jigéen ñi ñun ñëpp ñoo déggandoo góor jigéen ñi ba góor jigéen bu taxaw di défendre Wally Wally Seck di attaquer imam yi mais li musul am Sénégal. musul am Sénégal léegi lan mooy pexe si lii ngeen yaakaar ñu lan la ñu war a def ñun en tant que musulman ñu lan la ñu war a def en tant que talibé en tant que talibé en tant que njabootu sëriñ si en tant que musulman en tant que chrétien nan la préserver suñu valeurs parce que lépp lu bon lu nit ñu bon yi dugal ci àdduna bi ci ci artistes yi lañ koy jaarale Wally Seck moom mooy artiste bi gën a ñeme assumer di sol ay drapeau di taxaw di défendre homosexuel ba pare mooy wax ay nit di défendre quoi papaam di ko défendre ñuy wax ñuy attaquer. xam nga man imam Kanté dama ne woon Euh, dama noonu ñun du ñu attaqué Imam Kanté parce que dama noonu du ñu faral Imam Kanté dañuy tey ci ay mbiram parce que li mu defoon la dafa defoon dafa wanoon ginnaaw si euh, aar lu ñu bokk dem ba ci biir commencé liggéeyal état et tout loolu yëpp dëgg la mais je pense que actuellement il faut góor jigéen ñi xam ne nag Imam Kanté ko laalee ñun lañ laal Wally Seck xam ne su laalee Imam Kanté ñun la laal il faut ñoom ñu xam loolu parce que tamit quoi qu'on ci def ci aar ñu bokk bi lii nag lii diine moo ko woo diine moo ci woo te ñu dañ su boole suñu fula suñu fayda li Imam Kanté wax damay ñaan toute la jeunesse sénégalaise na ñëpp def vidéo parce que Imam Kanté sax waxul ni Wally góor jigéen la waaw mais ñu jox ko sommation interpellative mais dama ni maa ngi ñaan toute la jeunesse sénégalaise ku mën def vidéo def ko nga wax ko ni ma ko waxee nii ma ne waxuma la Wally Seck de mais Thione Seck góor jigéen la Wally Seck góor jigéen la te képp kuy def góor jigéen nañ la dóor ba nga dee Sénégal fii ku fi ku fi sol maillot góor jigéen nañ la dóor ba nga dee bépp boîte boo xamante ne ni ñi ngi taxaw di promouvoir homosexualité ñu xam ko dañ fay dem taal ko état bu jël responsabilité ñun ñu jël suñu responsabilité ci doonu Serigne Touba ci doonu Alaaji Maalik ci doonu Bañas ci jom ak doonu kilifa yi dëkk bi ñun ñu bàyyi benn góor jigéen di am baat ci dëkk bi wala ngeen taxaw di défendre ay ay ay ay ay ay Wally Seck wala défendre homosexualité duñu ko seetaan tey duñu ko seetaan ëllëg suñu bakkan lañ ciy teg bañ ñu ci ba dee loolu damaa bëgg Sénégalais yi xam ko bu fekkee ne dafa am sénégalais yi toog seen kër di seetaan ñun du ñu toog suñu kër di seetaan nañ ko xeex ba mu dañ ba jeex tàkk incha allahu rabbi message bi loolu kese la neexaluñu kenn nag ultiñu lu neex kenn suñu yoon nekku si na ko justice jël na ko procureur jël on s'en fou góor jigéen moom Sénégal du fi am baat te nañ ñi bàyyi di wax ay coowal pétrole bi lañ bëgg a étouffer coowal pétrole bi kenn mënu ko étouffer te lépp ci même sac bi lay dellu mal gouvernance kese la réew mi nag boo leen ko seetaanee ci ñàkk fayda yi ñun duñ ko nangu ñun duñ ko nangu ñun dinañ ko xeex ba keroog ñuy dee

taxaw di défendre ay ay nit yoo xam ne c'est-à-dire ñàkk tekkee dara mooy ñàkk faale yàlla ñàkk respecté yàlla mais dañuy sant yàlla ndax yàlla moom boo ko ñemee dina def ba moom rek ngay ñemee waaw boo ko ragalee nag doo faale dara ñu ñi ngi sant yàlla baax baax baax jox ni lépp lu mu aajowul dinañ ko def lépp lu mu ko def te dinañ xeex petrole bi dinañ xeex góor jigéen ñi dinañ manifester ci affaire Wally Seck ak mayom bi dinañ lakk drapeau goo jigéen àdduna yëpp gis ko dinañ manifester pétrole bi duñu bàyyi dara combat yi boo nee boo leen nee dafa dispersé parce que Sénégal moo dispersé fépp añ metti moo tax fépp la xeex jërë ngeen jëf ngeen baal ma àqu quoi mais dafa xol day jeex mais lii nag amul caaxaan lii du caaxaan lii affaire pas-pas la ak ngëm-ngëm kuñ ci jàpp nañ la dóor ba nga dee man man ñun ñu prenons suñuy responsabilité pour wax ko ngeen xam ko jaa ngeen jëf jërë ngeen jëf ngeen baal ma àq nag